géero géer ñaa ngi nii daal muhammadu rasulullah abdala baay ba mustafa amina yaayam xayrul lu waay jàpp na be tax muy rey ay doom wa fi saalika nekk na ci mbugal gim leen mbugal mu ngi gim leen doon mbugal nag ah balaa un nag nattu la waaw mbugal bi moom balaa u natt la waaye tim xéewal la xam nga dara dina am ba pare nekk natt ba pare nekk xéewal ñaar yooyu day daje moo tax tout le temps damay wax ne bépp xew-xew boo gis natt la maa yiw la loolu tax wolof di wax ne xayuwaay xiiwuwaay kon ñaar yooyu ñooy daje tey jii feebar bii nga xamante ni ñu ngi koy dund muy corona bi di ñaan yàlla mu jógee fi ci barke alquran mooy tey am na ñu nekk natt ci ñoom mais am na ñu ciy xéewlu am na ñu ciy bànneexu ñun ñëpp xam nañ kon loolu nañ ci bàyyi xel natt boo gis rek balaa boo gis rek xamal ne maanaam xéewal mu ngi ci même ñun ñii yàlla nattoo ñu ko tim bu fi buñ ci jógee rek danañ duggaat ci xéewal ndax damay wax tout le temps ne innamal usri yusran maanaam natt boo gis benn natt boo gis xéewal gu bëri moo ciy topp ndax boo gisee sax baat bi ni ko yàlla bindee alxosr gi mooy jafe-jafe dafa am liif ak laam yusunaan gi da gis ne amul liif ak laam nakkiire la bii maarifa la kon liñ ciy tegtale mooy naqar bi dina dina dina dina fi nekk de mais du fi yàgg mais bu jógee na xéewal gu bari mooy am kon loolu jar na sante yàlla moo tax ne ne ma ngi leen di xamal ne wa fii saalikum nekk na ci ray googu muy ray mbugal googu mu leen di mbugal ah balaa un nattu la nag waaye nag euh, natt la bi ko mu tukkee seen borom waaye itam xéewal la xasimun gu màgg a màgg balaa un xasimun balaa un natt la bi ko mu tukkee seen borom xasimun bu màgg natt bu màgg la ndax nekk ci kër boo juree ñu rey wax dëgg yàlla nekk ci kër nekk ak sa jabar mu ne leen at mi kenn du sëy ak sa jabar tëj leen tëj góor ñi fii tëj jigéen ñi fee wax dëgg yàlla loolu natt bu métti la waaye nag borom bi nee na fàttaliku leen dégg nga fàttaliku leen isfarrax naa bikumul bahra waaw isfarrax naa bañ leen tojalee fàttaliku leen ki rek bañ leen xaralee xar faraxa ba ñu tàqalee géej gi bikum ci yéen fàttaliku leen ba ñu tàqalee bikum ci yéen albaxara géej gi fa an jay naakum ma musal leen mais fàttaliku leen bés boobu sax ngeen ci mbugal lu yàgg de mais fàttaliku leen li am ci ba nga xamante ni na topp na leen ma xarl géej gi ngeen jàll firaw na ñëw lab ngeen wàññeekuwaat ñëw dëkkaat pale ba waaw loolu lu ko dàq boo ko comparer ak natt bi xam nga ne lii dara dàq ko ngeen ñëw dëkkaat kenn ku nekk séeréwaat ngeen jël pale bi loolu lu ko dàq moo tax mu ne fa an jëy naa ko ma musal leen wa axrax naa ma labal aale firaw na waa kër firaw na ma daal di labal njabootu firaw na ga yëpp wa antum te yéen mbir moomu tan suróona yeneen leen di xool xam nga nga gis sam noonu ni muy dee nga gis Firawna ki doon woote ne ko rabbukumul ahla mooy seen yàlla ju kawe ji nga gis ko muy lab di féqatu ba dee nga gis mbooloom yépp ni ñuy labee wax dëgg yàlla loolu doy na moo tax mu ne wa antum te yéen tansuroona mbir moom yéen a koy xool mu ne fàttali leen ba tey wa is waxat naa ba ma dëlantee Moussa Moussa arbaina laylatan ñeen fukki guddi fàttaliku leen keroog ba ma joxanteeg Moussa rendiw muy ñeen fukki guddi ya pour ñeen fukki guddi yi nga xamante ni bu matee ma jox ko téere bi ñuy tuddee tawreet fàttaliku leen bés boobu keroog bi ma leen di jox tiraanga ju mag jooju kado ju mag jooju te mooy téere ba fàttaliku leen bés boobu Moussa yàlla daf ko jox rendiwu pour mu war a gisanteeg moom pour mu jox ko tawreet mais balaa mu ko ko jox Moussa dafa war a wóor fanweeri fan Moussa daal di woor fanweeri fan bi mu wooree fanweeri fan daldi war a dem giseeg borom bi wax naa leen ne la koor ay façon koor moo am koor lu jiitu ñun farataal loon nañ ko ci xeet yi ñu jiitu am na koorug daawuda mooy woor tey jëlal tey noonu la ko daawuda daan woore bu wooree tey ëllëg mu jël am na koor goo xamante ni ayaamul biit la mooy fan yu weex yi dangay bàyyi ba weer yi am fukki fan ak benn nga woor fukk ak benn kon fukki fan ak ñaar nga woor fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk juróom mu nekk kaamil moom la ñuy tuddee ayaamul biit am na ñu koy woor am na koor goo xam ne nii dangay woor altine rek comme bés bi yonent bi juddu woon am na koor goo xam ne da ngay woo alxames kon altine bu ko defee bu alte bu nga dagg talaata àllarba alxames nga wooraat dagg ajjuma samedi dimanche altine nga wooraat am na ñuy wooree noonu gum ci mënta doon rek koor gu baax la koor moom gum ci mënta doon rek comme comme koy da nga koy def ngir yàlla ngir coobeerowu rek baax na nit ti mën na am nattu wala am lu muy yëg ci yaramam mu woor ñaan yàlla yàlla teggil ko ko yooyu yëpp nit mën na ko def dafa woor ñeent fukki fanweeri fan pour war a giseeg borom bi bi mu waree ñeent fukki fan yi ba pare fanweeri fan yi ba pare daal di ne comme yàlla daf ko jox rendez-vous wax dëgg yàlla balaa muy dem ci yàlla dana tuwaaletu soccu def lu nekk mu daal di tuwaaletu soccu defaru ba baax dem pour war a gisanteek borom bi ca tuuru Sinaa bi mu demee borom bi ne ko Muusa yàlla ne ko waa Muusa woor nga fanweeri fan yëpp de mu ne ko waa ne ko waaye dangaa ngaa soccu mu ne ko waa ah yàlla kay man dama bëggoon lu la neex rek xam nga kuy dem ci ku toll ni yàlla di dajeeg moom da ngay socc def nangam ak nangam mu ne ko non non man xetu moo ma doon daaneel léegi kon delluwaatul nga sa nga wooraat fukki fan waaw delluwaatul nga wooraat fukki fan moo tax xetu gémmiñu koy woor comme gàttug misk waaw yàlla ne ko man xooluma loolu xamoo ne yàlla xoolu ci yére yi ñuy sol xoolu ci oto yi ñuy war xoolu ci dëkkuwaay yàlla xol lay xool waaw nitu àdduna nag moo lay invité ngay sañsee ka def nangam mais yàlla moom xol lay xool moo tax mu ne fàttaliku leen ba ma joxee Moussa lay laylatan ngeen fukki guddi yooyu nga xamante ni bu ko jeexalee dafa war a ñëw jël si téere boobu ñuy tuddee tawret yéen su ma itaxastum topp ngeen jàpp al jëla yëkk wa min bahdi di gannaaw bu Moussa demee ca rendez-vous ba ñoom Moussa dafa dem ca rendez-vous ba ñoom ñu commencé jaamu wenn yëkk loolu nag la yàlla di nettali xoolal tooñ yooyu rek ngeen defoon xool leen tooñ yooyu ngeen defoon Moussa dafa wuyu ji borom bi ci rendez bi bàyyi fi Haaruna ndax Haaruna moo doon ban droit bi mu ko fi bàyyee nag am beneen Moussa bu ñuy wax Moussa Samiriyu Moussa Samiriyu maanaam moom dañ ko sànni woon ca àll ba jibril moo ko fa daan fekk di ko nàmpal jibril di ko nàmpal di ko nàmpal di ko nàmpal ba mu màggee nag mu gis jibril fu mu jóg gi rek dafay dund dafay dund mu ne lii secret la mu tibb ci suuf boobu garde suuf bi lu mu ko wis rek loolu commencé di di di di di di yëngatu di def ay bruit léegi nag bi muusaa demee ca rendez-vous ba nag comme moom Moussa yonent la ñemu fa ñëw bi Moussa demee nag mu ñëw bi mu ñëwee commencé wane ay xar baaxam dëkk bi yëpp génn mu ne leen dem leen indi seen takkaay yi gaa yi indi takkaay yi mu ruyal ko ba mu nekk saaru gilem wala saaru nag dégg nga mu jël sunguf bi di ci wis affaire bi di bëmb comme nag mu ne leen lii mooy mooy seen yàlla ji mooy yàllaay muusaa ji fanna si siya fa ko fi fàtte rek maanaam dafa dem rendez-vous fàtte ko fi mais moo nekk nii gisoo léegi mu ñëw gars yi nag sax di jaamu nag woowu nag woowu nag jaamu nañ ko ñeen fukki ñeen fukki guddi waaw ba Moussa ñëwee nag ci la meree dal di wax jàppanteeg Haaruna danañ ko jàng ci kanam ba Haaruna na ko